asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum képp koo xam ne mi ngi toog duñu seetaan xarit ki xarit yeeg soppe yi asalaamaaleykum aux Sénégalais de l'extérieur ñu ngi kontaan ci ànd bi ñu ànd ak yéen di leen ñaanal ngeen dal ak jàmm ci seen télévision Futur Média ndax dañu koy wax saa su ne te du ñu noppee di ko wax sunu bànneex bokk na ci xam ne yéen a ngi ànd ak ñun tey accepté programme yi kon bokk ñu leen di wax bisimila ci seen émission wareef bu nu waxee wareef nag faaw daanu wax ak Mami Linguère Diop daanu wax ak inspecteur Ndoye Bane waaye tey ñu am bànneex itam dalal fii benn ci sunu mbokk juriste yi ñu koy wax soxna Awa Tunkara moom itam juriste sénégalais yi ñoo ko fi yónni rek mu daal di fii teew ñu leen di ziar di leen sopp di leen balu àq bu baax a baax a baax di nuyu rek ba tey nu ko waxee képp koo xam ne mu ngi tokk di seetaan bi tele waaye nag daal di réserver nuyoo ziar ak ñaanal sunu ay kilifa diine kilifa aada mboolem xalifa généraux bu nekk ci biir réew mi nu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm defal ko jabootam defal ko képp koo xam ne sopp na ko ndax ñun nu ñu koy waxee rek toujours ah ñun dañ leen a sopp lool te dañ leen soxla ci biir réew yàlla na yàlla yokk seen jàmm yokk seen jàmm njaboot bu ko defee ngeen yàgg ak ñun macha allah yàgg du ñu tette daañu dugg tey ba tey. ci biir hôpitaux yi dispensaires yi nuyu ñi nga xam ne danoo feebar tëdd foofu yàlla mooy dogal waaye itam yàlla na dogalaat ba tey ci yéen ngeen jóge foofu ba àgg seen kër doxi seen ay soxla bépp hôpitaux ak dispensaire ñu ngeen nuyu maladie di nuyu ñi nga xam ne ñoo leen accompagner ndax baax bokk na rek ci xool nit yërëm ko gunge ko hopital ndax yàlla ay dogal waaye yàlla na yàlla faj lépp dugg itam ba tey ci maison d'arrêt yi di leen ziyaar di leen ñaanal yàlla maison d'arrêt boo dem daa fa fekk mag daa fa fekk ndaw daa fa fekk kilifa boo xam ne mësut a xalaat ne bés dana toog foofee waaye mu mel ni yàllaay dogal bu deful woon lii def leneen kon lu mënta ñàkk dañ koy nangu waaye yàlla na leen fa yàlla jëlee ci jàmm ba ngeen dellu si ci société bi dellu ci dellu si ci réew mi def ah macha allah lépp loo xam ne rek yéen a ngi ko doon mébét yàlla na yàlla sottil ko ku nekk ci tiis itam ñu ngi koy wax massa di ñaan yàlla mu saafara ko ñu ngee ñaanal itam waay dawlu yi di ñaan yàlla mu jéggal leen atte leen ci njéggalam ubbil leen buntu fiir firdaws yi nga xam ne mami nun dañu koy imagine yàlla mën na ko te macha allah yàlla na nu ko defal yàlla na leen jéggal te yàggal ñu fi ñun itam ñu leen di ñaanal bu nu agsee fii sama soppee sama uh-huh. xarit uh-huh. daanu faral di jël suñu ziyaar nag di la ko jox ndax yow macha allah da nga yàgg ci daara yi <laughs> ah, dama lay tuddee ndeyu daara danga yàgg ci daara yi ñu ngi dem ba point E uh-huh. di ziyaar suñu soppee suñu maam ah suñu wasi la maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum waaye du ma fàtte sunu sunu bàjjen sama goro uh-huh. ah yaa ki ne si du ñu ko fàtte macha allah uh-huh. soxna fat si itam bu daa baax nu ngi koy nuyu uh-huh. mami li ngeen dalal ak jàmm jox nañ la ziar beeg lépp nga yóbbu ko yaay nuyu ndey nuyu ñëpp <laughs> dellu di bëgg yow rek kon naa delluwaat dem seeti maam yi te ñoom rek ni ñu daan doore neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim sunu yaakaar tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag neen son Mandela tëpp koy jaloore di ziar nag mbooleem kilifa diine kilifa aada day di wax ne Sénégal a ngi nii réewum jàmm la mm-hmm. ku fi xuloo di xus booy layoo di tefesu kon lépp nanu ko def ci dal delluwaat nag ba point comme <laughs> mu yàgg fi lool te wér di ziar itam Cheikh Sidi Al Mokhtar di ko ñaanal moom itam mu lool lool te wér mm-hmm. ak mboolem xalifa yi mm-hmm. wax ne ñoom ñooy kenu mbaar mi kon yàlla na leen fi yàlla bàyyi ba ñu yàgg fi ndax ci ñoom lañu wéeru te ñoom daal ñooy léppi réew mi ah. delluwaat nag xanaa dem ba point eh, de tamaat rek waxaat eh, camara ji bi ante booy yaxaja ne ko loxo yi dellu seeti na nuyul ma maman diggan yaay na feeg yaay kinushka ak waa kër ga yëpp nuyu nag yaay Astou Diarra tey nag moom xam naa tey moom duma ko yóbbul ndambe duma ko yóbbul leen tey moom dama ko bàyyi mu dallu ndax man gis naa démb ko arrangé non non démb bi ma ko tooñee daal naa ne affaire yi <laughs> xawoon na la ko joo waaw nuyu nag Mimi Traoré nag sama xarit mais nag damay dem ba derkle tamit nag nuyu yaay yaay Astou Seck mère Ndoye ak Marie sama soosu nga xamante ne tabarkalla yaa nga ca la nga nekk rek te boole ko benn coow waaye nag xam nga nit ay mbokk ma ko sonal ñi ma bokkal dëkk kër Amadou Yalaak Kayalak daaru salaam darma damay delluwaat ak cil maxa mbaakool ak cil maxa yëpp rek damay delluwaat dem nuyu ji leen rawatina ci nag euh, ab sa bamba Diop sama cousine boobu nga xam ne ma nga fële ca Genève ab dundal ba say may di baawaan rakk ji la woon dund doyul ab sa bamba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax sama doomu bàyyil waaw mhm. sama xel dafa dem ci suñu benn yaay mhm. suñu yaay sunu soppe mhm. ajaratu nday soxna mbu wallaay ñu ngi koy nuyu di xam nga moom li li yusu woyoon nday ñëpp dafay muñ te yaatu dëgg moom looloo ko dal macha allah ah booy piir sañu xool ah macha allah eh. ñun kontaan nañ ci yow booy si piir sañu xor rek nga ni wuy ci biir boor ak ci bële boor déedéet boor ak ba boor ma am sama goro bu baax nag yaa Xadi Gomis moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax dam Ba waa waa waa booy booy piir sañu xool noo def ak ñun. waaw maa sant bu baax maa ngi leen di ziar rek. waa li nga li nga indi ci ci élément man daal sa élément bi non moom inspecteur lii moom doy na waar di. <laughs> nuyool ba noppi rek naa la bàyyi. parce que man damay ñëw rek sànjaaku la. di loo jaajëf jaajëf jaajëf. te kat du ndax man la bëgg a jooyloo nee na. <laughs> ñu ngi lay ziar di ziar njaboot geeg ñëpp mami ak euh, waa kër ga ñëpp. ak euh, gan gi. Mhm. di ziar kilifa diine kilifa aada yi. di ci jiital sama sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañoxoor sëñ Moustapha Cissé ak euh, sëñ moom parent Jibi Diagne ak kii di euh, sëñ Moustapha Ka du suñu imam bi di ziar ñëpp di fas yéene ñëw rek daal di tëj thème bi ak ak euh, te tëj thème bi ak ay reportage yu am solo ak ay témoignages yu am solo mhm. incha allah sa thème bi foor na waaw sama thème bi foor na waaye danaa leen wax yéen itam seen thème bi foor na ndax lépp ñëpp lu nekk nee ngi ci ni ko sama xarit Mbayang Thiam di waxee eh, nee na nag moom dafa leen di woo ba sonn mhm. man ni ñàkk kiñaan fii la yem dëgg la nee na saa bu xoolee dafay am envie woote balaay dugg plateau mhm. waaye seen heure mooy heure am est-ce que xam nga dara waaw Mbayang moomu njëkk a wane télé moom Mbayang Thiam moo ma njëkk génne génnee télé coow li coow li te kii moo a puus ba ma dem te looloo ngi jaare woon ci jëkkëru Mbayang dëgg la moo ma seetaan ne ko kii bu ñëwee toj coow li coow li ñuy jaar ci kii mu may nax di ma nax ba ma dem kon Mbayang moo ñàkk kii waaw neen na daal dafay bëgg a mhm. wax dëgg yàlla rafet lu liggéey bi mhm. waaye pour wax rek dañuy ab mooy suñu thème semaine prochaine de non nañu xaar ñuy liggéey nañu jàppante fi sabili la bàyyi ku jégi ah ñu mhm. bàyyi ku jégi Awa Tunkara kontaan nañ ci dalal la mbokk yeeg xarit yi def nañu deux semaines waxtaan ñu doon waxtaanee refus de paternité maanaam ëmbal nit ki ba noppi daal di koy bañ li ko waral dafa bare ñii nee nañu bu jigéen baree tànk ci ay mbir ah bés bu ko dara dalee ña mu doon àndal yépp itam ku mu ko ci jiin da ne déedéet. Mhm. nit nag baax na ba tàyyi baax lool macha allah xëy suba lu ni mel dal ko mu foogoon ne ka muy àndal tam nit la waaye ndekete yoo kooku leneen la. Mhm. daa dee bañ tas yaakaaram ah nit toog na nag ci sëy itam. di sëy sëy bu rafet macha allah ah wan na lor boroom këram ne ko man daal xaaruma ko woon waxtu bi bëggoon naa nga sëyal ma ba ca kanam. Mhm. gis nañu koo xam ne dafa wasin ba noppi. jëkkër ji ne ko danga maa indil jigéen waaye góoram a gënal. Mhm. gis nañu koo xam ne jëkkëram daf ko fi bàyyi ba mu demee tukki daal bàyyi na ko ñaari doomam itam. wootewul te moo ne ma ngay woo ñamu bokkal koñ ma ngay woo ay xaritam. Mhm. wootewul defu ca lenn ñenn ñi sax léegi saa ñu jël rek ne dañ leen a dëddale. waaye dëddalekat yi daal ñoo jaaxle ndax lu am rek ñu ne dañ leen a dëddale loolu yépp nag ñu waxee ko fii ci biir wareef am nag chance dalaloon fii macha allah ñoo xam ne vraiment ay porteurs de voix lañ dalal nañ fi imam Cheikh Gueye moom mooy jiite fii euh, jàkki al euh, fii ci Almadi mhm. mosquée bi nekk alma di ñu dalal fii itam madame Niang suñu xarit Korkaali Niang noonu la moom itam sociologue bu mhm. mag la ah tey nag ñu am chance dalal fi soxna Awa Tunkara mhm. li tax ñu defee noonu mooy mhm. thème bi xam ngeen ne du loo xam ne ñun dong mën nañ ko traité faaw daan ci wax ak ña nga xam ne bu ñu jugee buñ ci waxee itam mhm. ñu am lu ndaw loo xam ne dañu ci saafarewu donte mënuñu matal lépp soxna si ñu ngi lay wax bismillah suñu thème bee ngoog waaye danga may may ma daal di dem rek jëli benn partie à la régie ndax dafay baax ñu xool élément bi nga xam ni suñu xarit inspecteur Ndoye Bane daf nu ko indil ba noppi man seen thème bi depuis bu mu commencé ba tey maa ngi koy seetaan bëggoon naa yàgg woote nag mais juste dama amul woon courage pour woote ki woote démb nag wax moom ni mu fi mu jaar yëpp ak haine bi mu am ci papam yëpp moo motivé ba ma nit ma ñëw pour wax sama bos peut-être moom bosam metti na on peut dire y sax bosam metti na mais on peut dire gisul papam contrairement ak man nga xam ne dama dëkk ak sama ci benn koñ këram ak sama kër même pas su ma tee ci la yam may dund depuis am naa 21 ans tey musul wax ma wax alors dama ko détesté bañ ko tellement li tax ma bañ ko peut-être que bu doon man kese ma ne waw mais dafa njëkk a ëmbal kenn nangu ko kooku di doom bu nangu ko ba kooku tey mu ngi këram foofu la dëkk kër yaayam Dakar la nekk. mais man daf ma bañ te billaay fan yi ma amoon noonu nekk liir mu bañ ma walla azim tey maa gën a bañ tey iblis bu ñëwoon ne ma kan laay rey Sénégal du ma ko wax mandikat yi du ma ko wax violeurs yi du ma ko wax reykatu nit ñi moom rek laa koy wax sam parce que gis ko ak gis sama butit yi laa yemale lu ma kontaan kontaan su ma génnee dem si butit bi taseeg moom damay oññeeku mais su taseeg yow du la wax dara su taseeg man amul fitu wax ma dara parce que xool bi ma koy xool rek moom mu ngi sentir haine bi ma am ci moom parce que xam na ne dama ko bañ waxuñu ma woon nag mooy sam papa. parce que sujet boobu sama diggante man ak yaay sujet tabu la ba yéen seen émission bi sax suñu toogee di ko seetaan man ak sama yaay mu jug damay jug wala moom mu jug parce que tellement que dafay gêné wu parce que je sais li am dara neexu ko ci. moom aussi jàmbaar la parce que je sais que situation yi ma juree man su doon man je ne vais pas assumer dinaa jéem a avorter ou bien ma jéem a rey doom ji mais moom jàmbaar la moo tax mu téye ko ba heure mhm. mais je sais que douleur lay dund parce que euh, bañ gi ma ko bañ rek metti na ko torop parce que bi ma nekkee xale di jàng koñ bi bi ñu dëkk ak école bi ma doon jàngee sorewul mhm. chaque jour su ma jàngee damay romb këram pourtant temps ma nekkee xale. daan nañu wax mais temps yooyu xamu woon ne moom moo nekkoon sama papa mais bi may gën a dëgër di toog ak sama morom yi ñu naan man sama papa jëndal na ma lii sama papa lii sama papa may recherche nag di def ay recherche jour bi ma xamee ni sax am naa beneen mag bu góor boo xam ne nii ni mu juddoo man noonu laa juddoo dama jëloon décision ma ne damay venger wu si kii dinaa dem génn kii ba tëdd ak moom ba poussé sama mag bu góor bi mu tëdd ak man bu ko defee leneen lu si am ñu jël lépp pousse ko sama du sax sam pap du ma ko woowee sax pap instant yi nag wax nit pap dafa ma manqué tellement ko koñ bu mu dëkk dama fa xool kenn ku jàmbaare ku yiw koo xam ne nii dawul benn yoon ay responsabilité uf jabaram uf yaayam uf ay doomam uf ay bàjjanam ay jigéenam yëpp ci biir kër gi moo leen di dawal dépense kooku laa pareneel sam bopp kooku laa naan pap ba tey jii saa fu ma ko seen papa laa koy woowee parce que wax nit papa si boppam moomu mës a manqué bi ma nekkee xale ba tey daf ma manqué woon moo tax kooku papa rek laa koy wax sama yaay ànd na ceeg man ay waa këram ñëpp papa sa papa sa papa lañ may wax parce que mooy sama papa koñ bi xam nañ ko ku ko ñëpp xam nañ ko lenn rek moo ma metti mooy santam bi sama yaay def samay këyit parce que tey jii bi may ut carte d'identité am 18 ans dama ne woon damay dem changer sama sant def si sama santu yaay waaye sama yaay moo ne ma loolu bu ko mës a def parce que tànnaloo ko sa bopp yàllaa ko doba. kon moom reconnaître na woon uh, ëmb bi ba ba. mosu koo reconnaître këyit yooyu sama yaay ko ut moo ma si defal santam. sant sa sant yaay moo nekk sa sant. déedéet santam moom moo nekk sama këyit moo nekk sama tur. mais sa yaay ko ut. sama yaay ko ut sama ko defar tey jii su ma soñoon loolu yëpp day deñ parce que bugguma bokk ak moom dara dara dara wallaahi ndoy baan li sama àdduna yëpp pour dominer instant yi tey maa ngi ñaan yàlla di yàlla teg ma loxo parce que je ne suis pas parfaite nag peut-être on peut dire que je suis comme les jeunes filles d'aujourd'hui rek mais maa ngi ñaan yàlla bés bu yàlla defee sama ma tekki wala may venger wu si nit moom kese lay doon parce que Ndoye baan kooku ni ma ko bañee ëpp na. da nga bëgg a venger wu sa papa. waa parce que instant yi su may su may dox nii di nooyi air ba taseeg moom sax damay fatt sama nooyi pour bañ a nooyi moom airam moom ngelawam tellement que bañ gi ma ko bañ tey ji bu dee woon ñu suul ko ma xam ne dee na gisatuma ko parce que tôt ou tard dañuy fekk suñu bàyyi dee am na fi ay bàyyi fi nekk dañoo dee dëkkoon si beneen dëkk du ma ko seeti mais li tax gën ma metti mooy dama bokk ak moom koñ même koñ chaque jour ma mën ko gis moom mu xam li nekk ci moom moom man ma xam ba pare mu bàyyi noonu dégager ay responsabilités ay waa këram nag ñëpp xam. mais kenn waxu ko si te instant yi nag Sénégal xamuñu ko def ko fayu lañu xam tey jii maa ngi toog di imaginer yàlla def li muy def ba ibil ma buntu wërsëg tey su ma jugee def dara si moom ne damay venger wala dara nit ñi dinañ taxaw naan kii mooy sa baay kii mooy sa baay waaye gis nga lu waay di wuyoo kenn waxul te lu waay di baan da koy nduru sa baay boobu wallaahi bëgguma kenn wax ma ko te disi te loolu du ma ko bàyyi mukk mukk malaaka sax su wàccoon wax ma pour ma baal ko du ma ko baal parce que bu nekkoon beneen dëkk mën naa ne mu ngi beneen dëkk mais mu ngi di koñ am am xolu muñ ma man dina am xolu muñ ko lu ko raw te bu soobee yàlla dinaa ko muñ lu ko raw dinaa ko vasaw loo xam ne nii vingt u un ans de souffrance yi ma def yëpp dinaa ko fay benn fan mu toog di jooy te kenn du ko nax moi je le pas je le hais de toute mon âme ah soxna awa dégg naa nga soupiré waat soxna si dalal ak jàmm ci plateau bi. c'est c'est no comment waaye duñu ne no comment faaw dañ ko commenté. na ah, <laughs> ah, ah. gis wala gis naa gis gis nga ndeysaan nga dellu si waat. waaye doom yàlla la yàlla baaxal waaye. wàññi wàññi li ci xolam. maa ngi leen di bi euh, for na. Mm-hmm. yu mel nii xam lañ xam ak conséquence psychologique bi ba moo tax ñu ñun ñun bokk ci ñuy xeex li mooy refus de euh, paternité waaye xale bi passion laa ko mun a wooye aide bi mu kii yal papam foor na foor na trop foor na ba euh, mun na ko lor sax moom si boppam mun na ko lor si boppam parce que beneen aspect bi am na tamit apprendre aussi à oublier peut-être à pardonner parce que oublier dina metti fàtte moom metti mm-hmm. waaw peut-être sax euh, baala dana yomb fàtte waaw mais peut-être su jéem jëm ci booru jéem a gisee papam peut-être ku nekk am lu mu wàññi xëy na moo koy gën a jëmale kanam ak loolu mm-hmm. loolu nag jegewul lu yomb jegewul bu yomb moo ko wax dina kii li muy wax yomb na lool dund ko mais loolu laa ci ba nga xalaat daal mhm. parce que bi foor na ba nga xam ne tey yenn patients yi daal c'est euh, ba nga xam ne daal waaw da nga doon bëgg mu dédramatiser dund dundal dund ko drame la parce que aide daf ralentir la drame la moom ah, mën na la booster comme mën na la affaisser nga nga nga kii la drame la waaw parce que nee na moom du ko du ko musa baal bu yemoon ci loolu sax waaye pus bu amee occasion venger bu dina mhm. venger wu mhm. xëy nag du moment peut-être dina am lu mu ci yëg peut-être un petit soulagement mais ndax dana wéy ndax du doon lu instantané kese wala bés bu day wax sax mais bés bu musoon vengé ba pare est-ce que sax du ko rëccu. Mhm, mhm. lépp gi ci daal ba pare mu rëccu ko mhm. lépp daal ci kii humain la daal ay sentiment la te lu fort la te sentiment waruñu ko sàggal war nañu wax ne violence bu ñu naan violence violence violence psychologique dafa doon lu metti te yeneen violence yëpp boo gis tamit psychologique mi ngi ci biir. loolu daal mooy doomu aadama mooy mooy def nit. waaw mooy nit ah mooy ni nit mooy nit. mooy nit soxna Mamy mm. ah, yëf baa de. waaw man de li ci boroom bëggoon daanaka am na ko ci. dama ko dul may nag mu jooyloo ma ci plateau bi moom. mais baal naa gis naa la gis naa la jotoon naa dem mais dellu si naa ndax xam nga lu tax. lii awa wax moo ma tiital mooy que ba kañ. ba fan la ko mën a eggale ba fan la ko mën a yeggale. dafa wax lu ma tiital loo xam ne dañ ko dundandoo man ak Ndoye Bane. muy dafa ne dina ma puuse ba ma dem ba dinaa ut sama frère boobu ba tëdd ak moom lu ma ci fekk ma yan ko sama papa may fàttali ne am na ñaari gone yoo xamante ne seen àdduna yàqu woon na bu dul woon doy baan mi duñu dellu siwaat ci àdduna xay na ñoom la leen ko tegoon bañ eggoon ci seen frère di tëdd ak ñoom wala seen papa bokkul ak bii mais loolu maa ngi koy ñaan ci àdduna bu mu sax traversé ti xelam ci àdduna mhm. parce que waxuma laa sa papa mi ngay wudde mhm. mais yow seetal sa diggante ak sunu borom seetal sa diggante ak sa frère boobu parce que sa frère boobu nag tooñu la defu la dara nañuy bàyyi di fayloo ay nen ku ko tojul mhm. dafay metti ndax yow mii lekk omelette benn sam xel du dal ndax ki fay nen yi toju ko xam nga sama papa def na ma nàngam sama papa def na ma nàngam bàyyi la ak lu mu mën di doon man damay bëgg nit ku nekk ñu bàyyi la suñu borom attel la atte boppam man damay bëgg nit ku nekk ñu bàyyi la nga dund li nga war a dund ndax na xam nga lu tax yombal xiyaam soriwul ah sori na soriwul am na ci ñoo xamante ne seen atte ñi ngi koy jot fii ci àdduna di ko gis sa demuñu fenn am nañ mag ñoo xam ne ñi ngi toog naan su ma yëgoon su ma yëgoon mais dañoo dukk-dukki woon seenu ndaw kon faaw ñu yomb yomb seenu mag man nag dafa am lu may wax damay wax ma ne mag mu duy ba paanam fees man xale bi tollu ci taataan du ma xeex ak moom xam nga lu tax ki rembet la yow muy dékku doo wuta doo xeex ak moom kii dem na ba ay atam jeex na mi ngi xëcc dee nga koy xëcc moom moom mooy xëcc dee dee di ko daw kon man du ma dàqeeg yow ci kaw dee di venger wanteeg yow di wut lu ñaaw wala ma koy def donte nag dafa metti ndax ci xol la ki nga xamante ne moom nga bëggoon mu tafu ci sa kaw moo la bàyyi mais dem ba nam ne damaa nam ne nit papa yàlla may na ko tey muy wax keneen papa nee na bàyyi bàyyam ak jëfam ku nekk sa jëf fat-fat lu daal awa <coughs> dàqalewul mbaam ak noppam ndax da caa sax mm-hmm. ku nekk ak sa jëf moom la bambara naan bee bi yére yi mhm. lu waay def itam boppam bee mhm. hmm? ah, bi yére yi bi soo gisee mu metti ñi koy dund bari nañu mais su soo gisee xale bi metti le hmm. moo papa ji dañoo dëkk dañoo mhm. bëkk benn koñ chaque jour ñu tase ci koñ bi loolu mooy problème bi hmm. bi ñu defee élément ba pare waxtaan nañu mais li ma wax ni ma moom lay waajal baay bi plan yi mu koy tegal jamono yi nii nii nii moom ci boppam pareegul de jamono yi dafa mel ni dafa am scénario ay plan man maa ngi wax ak moom pour mu génn ci. dëkk bi ñu dëkk ci koñ bi rek mooy problème bi parce que loo wax tey jii su ñibbee wàcc ci taxi bi wala mu wàcc rek mën na daje baay bi xol bi commencé jóg. Mhm. dëkk bi ñu dëkk moo tax du neex a kii mais ñoo ngi wax ak moom pour que mu li mu mébét mu bàyyi ko. parce que li mu ma wax ni moom moom lay waajal baay bi loolu bis bu ko defee baay bi dootul xaj ci àdduna bi. waaw ah man benn ah benn kumpalaam je sais pas est kër gi ñu dëkk kër famille la wala dañu loué foofu. non non su doon dañu ko loué ñu mu taxu. non non kat c'est que c'est que fi mu dëkk. su euh, mu dëkk su ma damay moom sax nee na ma waxal fi ma dëkk. moom wax na ma. waaw xam nga dootul na bëtu ndeysaan mu dëkk en général ñooñu seen i kër yi ñoo koy moom. bokkut ak Liberté 6. Ah. bokkut ak ay Sacré Cœur. Uh-huh. bokk bokk di nga xam ne kër yooyu. ñu ci bari locataire ay location mais car gox ba mu dëkk. Uh-huh. Euh, maanaam gox ba mu dëkk daal maanaam lébu yaa fa ëpp. Uh-huh. te lébu yi fa ñu dëkk jamono ñoom ñoo koy moom en général. donc tuxu tuxu du yomb. moom moom yaayam ñu moom ñu moom moo dëkk ñoo ñoo dëkk. ki ki mu ki muy wax ni moom mooy papaam tamit mi ngi dëkk à côté léeg ñu daje ci boutique ba léegi léeg ñu daje ci arrêt car ba léeg-léeg ñu ci mbedd mi donc loolu góom la boo xam ne faj ko yombul mais li ñu mën a def puisque jeune la te ñun tam ak euh, ñoo bokk génération mhm. dañ ko woo di wax ak moom di ko delloo si naan ko mu wax comme def comme euh, waa jooju ma tegoon bër ki démb mu jéem fàtte mhm. te continuer di dundam que yor nay kayit mhm. te mi ngi dund boobaak léegi deewul dara jotu ko yaayam ngi koy toppatoo na xool ci yaay gi xool ci ñoom maamam xool ci ñi nga xam ne tey ji dañu den le ñu suul seen yaay suul leen rey leen ñi nga xam dañ a sànni ci nekk ci naka su noonu moom parce que su moytuwul comme li ko li ko li li juriste bi wax su moytuwul mu dem di venger wu la vengeance boobu këpp ci kawam mm-hmm. waaw loolu et que li ko métti mooy lu tax papaam nangu koyee te nanguwu ko moom. torture la nag mhm. torture lay vivre. Mhm. au quotidien comme ni mu wax li mu mhm. def. torture la bu muy vivre au quotidien te tamit mu nekk tamit di wu di defaat moom elle est déjà victime. ba pare moom si boppam mu bëgg a victimiser waat boppam. tegaat boppam torture man fa ne yéen bi day gën a diis ba moom jaral na ko mu sacrifier boppam. parce que xam ne ne dina def peut-être loo xam ne du loolu ba peut-être xëy na yoon dina dal ci kaw wala dina yàq vie am lu tax muy nangu vie am yàqu ndax action wu papa ba pare moom it contribué wu dara pour defar ko mooy mu ngay gën a yàq vie am loolu laa gisul te te te mën nañ ci yokk soxna Awa Tunkara ci suñu gis-gis ba tey mm. ku bëgg a noppalu da ngay baale ku bëgg a wér waaw waaw parce que bu fekkee ne daa ngi ne da nga bëgg wér te doo fàtte mm-hmm. lu dikk nga jël ko mm-hmm. boo boo dul baale doo noppali mm-hmm. toujours lii duñu ko wax nag na ko baale parce que aussi nit ki li muy dund moom moo xam tolluwaayam moo xam métit bi mais su mu nee wàññi tuuti ci côté papa mu affronter la vie continuer yëfam ah ut li mu bëgg parce que ku am jom la may niru. xam nga nee na moom dana fàttaliku da ngay soxor booy fàttaliku da ne nii dafa soxor. waaw mais man nag li ma gis nag côté jigéen bi mooy wax man man côté jigéen bay wax peut-être euh, yaay mooy wax mm-hmm. mais côté tamit euh, côté juridique bi côté bu juriste bi di wax nag di nga gis ne wax bi dana gën a wutee mm-hmm. dana gën a wutee ba pare mi ngi wax tamit ne tur sant papa ji moo nekk ci ay kayitam mm-hmm. mbir moom itam doon na lu ma jaaxal waaw parce que temps dama foog ne dañu foog ne laay wax xam nga toll na jamono yoo xam ne da nga daan jël pièce ku góor ki yóbbaale ka rek ñu ne la euh, ñu jël remplir parce que qu'il s'est passé aussi des choses ci yenn euh, bërëb yi ñuy déclaré xale yi ñu xaw a doy waar itam xëy na yu rëcc ah, yu demee daa ngeen ko dee gis yu jékki-jékki yuy rëcc la mais ah. normalement moom nit kee war a koo mën a buñ ko ci defee itam defuñu ko ci place sant bi mun nañ ko def comme ni di tuddee tudd par exemple Awa Diop Fall mhm. def feneen ñu jël par exemple santu papa bi peut-être def ko de mu topp juste ci prénom bi mais def ko côté fii est-ce que moom nom du père am na ko Uh-huh. waaw nee na am na ko wax na ko mais gis nga soxna si comme ni nga wax côté këyit yooyu ngay wax noonu mais dëkk dëkk bi dëkk bi këyit boo bëgg da koy am bëgguñu ci suuf Sénégal gi waaye ñeneen ñi ngi parce que xale bu judduwul ñu jël ki ci papa ji rek ko mën a déclaré papa ji ko mën a déclaré mooy yoon allo allo si ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ngi ci émission wareef allo. allo. wàññil wàññil télé bi wàññil télé bi ndax nga mën a wax ñu dégg la. jërëjëf. septembre bi ñi ko dund dañoo bari ci réew mi. waaw waaw xam naa ne yow itam daa ci jox ay jéego yu continue waaleykum salaam wa rahmatullah. oui ça maa ngi fi ñu ngi fi ñu ngi fi. ñu ngi lay fay bu baax. sa baat bi dafa ndaw lan la. tu as une petite voix. <laughs> naam. Ah, maa ngi lay fay ku ah, baax ki ah. dafa mel ni ku sonn a wax mhm. Mhm. ñu lay déglu baax. jërëjëf. yéen a tax moom ma xam samay vrai parents. alhamdulilah grâce émission bi. amiin moo tax man ma xam man maay kat. ndaxte maa ngi am naa benn taar. mosuma xam man ki ma nekkal lu sama papa mosuma xam ko nekkalee sama yaay. vendredi laa ko xam. ba seen émission bi moo tax ma xam ko. ndax su ma toogee sama yaay yéen dañ lay seetaan. danaa ma jàppal waree jàppal waree. Mm-hmm. ma jàpp ko keroog émission bi ba mu commencé depuis semaine mu ne ma liiral ma publicité bi. ma ne ko refuse paternité. mu ne ma lan ma wax ko ko. mu ne ma ah tey sama gars yi fii lañu génn. ma ne ko ya ma dem ne su ne dañuy génn tey suñu génn ah daal di naan la changé. ma ne ko yaay lan moo tax lay changé. mu ne ma changé rek. ma ne ko waaw. mun ma boo ko changé mu jóg. man de man mu dem bàyyi ba mu dem man ko di ko waaye changé naa ni ma mu toog man ko di ko doon seetaanam di ko ñuy seetaan li ñuy seetaan yëpp xam naa ne ñëpp. on a toujours benn femme bu ci nekk États-Unis. mooy ki doon wax mooy tam doom bi dafa dafa décidé. te sant si soxo. waaw naatakat boobu. waaw li muy wax nit moom mi ngi jooy. ma ne ko waa yaay lan la mu ne ma damay njaboot rek xam ne ci li ko dal métti na. ndekete yooyu moom la ndaw soo ko dund lu ko raw la dund. ndaxte man sama yaay suñu mooy sama yaay sama yaay. da daan liggéey lu daan. kër ga naan liggéey mbir naan ca Paaba. Paaba ko ko def à l'âge de douze ans. li mhm. mu ko ko defee nag mu daal di bañ. Mhm. li mu moom. Mhm. toroxal sama yaay toroxal sama papa. ndaxte sama ñama naan papa yaay ñooy sama maam. waaw man sama yaay moom toogu la yaayam ak papaam am ci dëgg. moom kese. la am ci doole. léegi da sama papa boobu li ma demee di ko rekalaale da ko bu baax jaadi ko di ko walaaka am nañu pour ko wax génn. papa papa depuis boobu ba tey dafay souffrir maladie ndax la même ko ba ma xëy diggam ba tey day nekk. li tax nag ma xam dëgg dëgg. o yéen da ngeen def émission bi moom mu jóg dem ci néegam di jooy. ma fekk ko fa wax mu bañ. ma papa ñëw ci guddi gi mu ne ko diw nañ ko wax dëgg. ndax bu ñu ko waxul dëgg metti na ndax waaye wax rek li muy def émission bi da nga koo laal ko moom xamal mhm. booba maa ngi gëstu te li may gëstu xaw ma lan laa. Mhm. ma taxaw bii ci biir seen tool bari sama papa ni ko mën a damay wax daal yàgg na naa bañ. Mhm. wax naa la ko yàgg nañu ko privé bi ndax léegi ma bëgg ma daal di tënk buntu bi daal di naa ni ko mën ngeen wax leen ma lan la wala ma xaru ñu ne ma déedéet ma daw te paaka ñu ne boole ba ma lan ma damay ñu ne ma bàyyi paase bi ñu wax la lan la. ñu ma léegi dafa guddi léegi dangay bàyyi ba a waaw bu dara nag ñu nax ma ne ma day am kuñ la bëgg a may rek ñu ne dara. Mhm. bañ ko yéen man lu ma sii mënumaa dimbali ndax nit rek laa am ñun ma waa léegi dangay dem ndax tànn ma si guddi googu sama yaay man la fa naa ñëw ma daal di koy ñëw daa ko papa la la yaay sama papa liggéeyul booba ndax loolu ñu wax ñu kër gi ma daal ma man du ma sa papa kii bi man su ma laa

suñu sa maam la ñu ñëw gis sa yaay sa yaay moom dong lañ am si boobu ba bu juddoo nag lañ la jël bu teewaat la sa yaay. Mm-hmm. man fi mu toll sama yaay lañ ma tuddeewaat ma ne ko kan nga sama papa mun ma jiw ma sa papa. Mm-hmm. ma dem ci suuf bi àq ji ko fekk bu ko fa ma delluwaat la lan la ba demaat sax. Mm-hmm. fekk ma ko fa man lay su ma demee ma dafa tukki. sama papa xam ne man dem naa àq ji sax mu daan fekk. actuellement nii damaa nekk soriwul nga mën a wax ak yéen ndax xam ne maa ngi wax ci wax ji rek dara amul ko na xarit mais man wóobu ma li mu wax nii foofu ma bëgg xam-xam papa foofu loo ko ko xam. wala kaana jëpp bañ ci man li mu bañ man su ko raw laa bañ ci moom ma ko. lenn daal am naqari ma deret ma naqari mais deret naqari li mu bañ man su ko raw laa bañ ci moom. bil dee wallaahi taala léegi dafa feebar bu deewul ñu ko taxaw. bii de wóor laay laal sama yaay bu tudd ko moom fa mu nekk tudd ko moo tax ma ne yéen loo def lu baax rek doy ndax yéen a tax ma xam maay kan ndax xaw ma ko woon. Mm-hmm. ay pas une semaine ma xamee fii ma papa fii sama mag une semaine. moo tax démb dama ne ma fu mu tëdd woo ma koy baax. bii de wóor laay man woote woote woote te dama def ba woote ku doon xam sax mu toll ma ne sama yaay merewu ma la ma papa merewu ma la dafa gën moom la. ndax xëy na yàlla yaakaar naa boo leen mos a jëlee damay damay ñaax te de seen seen ma mën a am. mais dama naqari mooy li tax ma xam sama bopp man grâce à une émission. loolu moo la naqati ah. sama papa ni ma. télé yéetuwul jàngale yóbboo bu tëj. mu ne nag yow dangay foog naan man damaa bëgg doy baax dangay foog naan tata Eva dafa koy bëgg tata Eva bu ma dagalee topp ba tey te émission yeneen yi damaa def xanaa kii du ma foog defar ma. ma ne moom mën na ko mën naa li man li ngeen demoon kër laa def ndee. Mm-hmm. ndax moom li ñu wax day bëgg sama biir kaw. xam ne yàlla bu ma boole jël ak xëy na lii moo tax. Mm-hmm. te boole maa yëg xëy na ma du tax man ma xamoon ma kat ci yéen lay jóge. Mm-hmm. moom moo tax ma nit yéen war a def ci bu baax bi yàlla na yàlla def ak jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. sama maam Sall ma sax wax maam sama yaay merew ma ko sama papa merew ma ko. ci laa xamante ni moom laa mere. ci la xam moom laa bañ. mais ci li mooy ci moom jur. ñeneen ñaa am alal ma wala ñun wala gaan la wala gaan bi nag taxul ñu toog yàlla taxul ñu def na ko ci lu noonu. te moom xoolee xool na ko sama xam ne ñun benn la. kon moom. parce que man bañ naa xam xam. li ma nakay mooy ma ànd sa yaay ma jàpp. dafa yaay ñu génn àdduna grâce à am noonu moom ak ay xarit xëy na yàlla rek noonu la ko tuddee. xëy ko kuy mhm. waa léegi euh, témoignage bango soxnaa wa mhm. yéen de yéen yéen da ngeen a da dégg ba tàyyi mhm. xanaa dañu war a jël benn page. Euh, nañu dem seeti nañu dem publicité ba noppi ndoy ban nañu dem publicité ah. ñu ñu ñu dem jokkoo ak mami euh, bu ko defee rek mu wax ñu mu won ñu moom itam ni mu mën a ci waay. ah mbokk téléspectateurs yi ngeen baal ñu àq ñun nag léegi saa yi ñu dund loo xam ni moom ci ci ci tàng tàng bi dafay xaw a doy waar waaye nag loolu mooy àdduna ndax yii fii lañ ko fekk amaan na sax ñun parti bu gën a néew lañ ci yor nit a ngeeg naqar boo xam ni tey bëgg ko sax wax ci télé te mi ngi tëdd ak moom di dem ak moom di ñëw ak moom waaye yal na yàlla saafara ndax les miracles aussi existent euh, sunu doom di woote sànq nee na moom li ko naqadi mooy ni mu xamee boppam à travers une émission yàlla moo namoon ne ma fii nii ngay xamee sa bopp waaye xam sa bopp sax du ne maanaam dañ la wax di way sa baay di way yow li nga doon am na ci solo ndax dinaay faral di wax ma lu suñu jur yi def bu dee lu baax nañu jël ñu aakimoo waaye bu dee lu bon loolu daf noo mag yow da ngay fexe xool yow li ngay doon loolu moo am solo loolu rek moo ci am importance mhm. ndax yow itam bés dina ñëw dinga fonde une famille mhm. boo fondé une famille ñu lay ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm nga fondé ko ci anam yi gën a rafet inspecteur Ndoye Bane mhm. yow nag sujet bu ne yànn ko fi indi. gis nga <laughs> waaye ñun ñun am nañu doom bu bees maa maa jégalu. ci ci affaire yi parce que liggéey bi moo ko laaj parce que dé man bi dem bi ma paree émission dama naroon a dem ci dëkk bi xale bi nekk. Euh, pour dem interview ko mais que dëkk boobu dafa sori. ma waxtaan ak moom ci guddi gi. après nag ni ko su émission bi commencé dinañ la woo. mais pour xamal leen ni papay xale bi kilifa la ca dëkk boobu ba pare politicien bu mag la ca dëkk boobu. te yaay ji bi mu koy ak bi mu koy accouché 12 ans 13 ans la am ca la gaañu. nee na dafa doon yaay ji da doon liggéey ca kër ga. da doon liggéey ca kër la woon yaay ji gaañu na moom avant muy judd. bi ñu koy génnee moom dañ koo gaañ mu am benn benn benn liggéey bu mag ci yaram bi. dañ ko jëli. voilà dañ ko jëli. yëpp expliqué na ma ko ah. mais bi mu jëlee paaka bi yow yëpp mais mais ba sànq rek bi ngay yéeg ci escalier yi maa ngi wax ak moom téléphone mais li muy dund metti na trop trop trop trop trop mais nee naa ko nag na nga gërëm sa sa maam jooju mm-hmm. ak sa maam bu góor bi sa maam bu jigéen bi mm-hmm. parce que yow papa sax la leen wooyee papa ak yaay te li ci gën a yéeme mooy maamam boobu ak bu góor bi bu jigéen bi benn doom lañu am muy ko muy yaayu xale muy yaayu xale bi <laughs> yaay xale bi tamit benn doom boobu la muy xale bi daal di dem ñoom njabootuñu donc su ko retourné yàlla moom yàlla pare na su retourné naan kii yaay naan kee papa te papa ak yaay miy wax kooku seen doom jooju moo génn àdduna ca ba muy accouché donc yàlla moom euh, pare na ay euh, lan mooy situation dafay jàng. Euh, laaj boo ko daf daf koy dafay jàngam déet loolu xam naa après dinaa ko dinaa ko laaj. mais instant bi kilifa googu ko def loolu dafa feebar. kilifa bi dafa feebar. waaw kii papaam yi muy wër nii dafa feebar moom démb ak barki démb dem na ñaari yoon ci kër kilifa googu ñu ni ko dafa génn. man est-ce que jar nga fay dem. moom kese amul doole mais courage la am rek ndeysaan di dem waa waa waa euh, nañu jël ki ci ligne bi balaa maa ñëw ci Awa Tunkara parce que doy na waar allo. allo. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam maaleykum salaam. ñu ngi lay dalal ak jàmm ci wareef. ma ne ko jërëjëf jërëjëf Eva. jërëjëf ma ne ko kontaan si émission bi. alhamdulilah. ni ñu koy waxee naan ko ku si ne man sama bopp bett na balaa may wax keneen dama leen dund ñu leen yëpp. Mm-hmm. parce que cas bi dafa mel ni man sama cas la personnellement. Mm-hmm. xam nga. waaw parce que comme ni koy waxee si njëlbeen ba euh, njëkkee. Mm-hmm. man ak sama yaay. waaw dañu nekk kër famille mais kër famille bu ñu nekkoon. bi ma juddoo sama benn sœur yaay daan wax sama yaay ne ko. sa doom bi ki nga wax ne mooy papam du papam. waa xam nga ñu nekk fa nag di ko mbirum bi si famille beeg yooyu noonu sama papa bi ñu wax ne d'après ñoom bi ñu wax ne mooy sama papa dafa daan génn li su dee naan si télé naa ñuy okkante naan kii mooy papa ji ki ñuy wax naan du papa ji koo koy papa ji. waaw. xam nga comme ni nga ko waxee rek nga lu la neex lu la nekk bi xëy ko ngi naan ma doon xale bu am jom. waaw macha allah. ku si xuloo ak sama yaay rek nekk sa doom bu am ñaari papa bi. xam nga mais euh, sama yaay daf ma daan défendre benn jour nag man na ko dama bëgg ñu waxtaan. xam nga au juste que ne dafa am lu xew nga wax ma ma mën a xam mu ne ma man lii la wax ne kii mooy sa papa kii mooy sa papa. Mm-hmm. xam nga mënuma ñoom li ñuy wax mu naan mën ma du dara lu la. Mm-hmm. ma ne ok par la benn jour nag ma gis sama bopp ma ne ku ma ko fi waxati dinaa la force plainte pour diffamation. waaw xam nga bon. comme ni ñu wax affaire bi suit son cours mais comme ni ñu koy waxee rek nattu parfois dañuy jóge si yaay dal si doom. dëgg la. xam nga man ma ñëw Europe bu may ñëw Europe ba may laata jógee Sénégal du ma wax sama tur dama koy lekk mais dama fa doon ak artiste laa foon artiste mag. dëgg la. xam nga. waaw mais xam nga ñu naan ku nekk ak sa ma am benn waaye bu ma fi tateel. Mhm. ñu daal seen mën a ko man affaire yi ngoro tax ma koy jóg nañ def fulla ñu gën. Mhm. waaye di takk man ndekete man bu may takk yëpp am na benn bopp jigéen bu mu nekkal. waaw yóbbu ma ci dara. xam nga mu ma see moom jël si ëmb ak yooyu yëpp noonu duñ ma accouché mu ñëw jox xale bi tur euh, ak sant déclaré ko. léegi man dëkk bi ma nekk ak dëkk bu mu nekkoon du woon na mhm. xam nga mais dëkk bi ma nekkoon euh, comme déclaré na ko fa ñoom dañu ne dañu jox xale bi kayit bi parce que union européenne bi la. Mhm. mais dëkk euh, bi mu waaj a nekk ñoom ñoo koy jox kayit bi. waa moom jaabal di jaabal ba finalement jox ko man waaye bu ma nee ma ñëw nekk bu may laata ñëw askan dama wujj nekk sa kër ga. ma lu xew. waaw mais bu ma duggee si la sama àdduna yàqu. xam nga xale bi à l'époque elle avait deux ans et demi mais papa ji laa la wax mel ni comme daf ko noonoo façon boo xam ne doo comprendre te comme ñu koy waxee rek jigéen moo mën a defar ko moo mën a yàqal. Mm-hmm. xam nga ma jël lu ma neexatul ma naqar yëpp ñëwi ko. nekkin bu foofu metti ma jugee fa daal di ñëw dëkk bi ma nekk léegi ni muy France. xam nga ma toog di ko muñ di wax waa ji parfois maa ngi def mu garder contact ak def cinq ans cinq ans gi ni gisul doomam. Mhm. xam nga mhm. su loo xam ne euh, tàggat passeport am jeex bi passeport bi jeexee nga woo la personne jàppaleel sa doom defal ko passeport. mu ne la aw ma jot soogal ba ma yor ko ba ma am jot ma def ko ñu ngi ñun loolu noonu consulat woo consulat nga jaabante ñu jël euh, papier bi jébbal ko consulat ba léegi bu ñu wooyee waaj ci kalaaj mu ne dafa yóbbu Afrique ba damay bàcc sama trace bi su naan nga mm-hmm. léegi si euh, ñu seen xel ne ko cinq ans gisoo sa doom doo ko dundal sànguloo ko xam nga décembre ak anniversaire xëy na ñaar yooyu nga si xam moom pour jox ko mu lekk. vraiment hmm. nga yow pendant ce man en lan laa war a def loo xam ne jiital naa yàlla bugguma mooy bugguma def dara. vraiment hmm. nga sëy ba tas naa. comprends nga. Hmm. te sincèrement cas bi dama si gis sama bopp trop Eva. Eh comprends nga. démb kii laa woo doy baan. waaw vraiment nga ñuy waxtaan si guddi. dëgg naa la. waaw sincèrement mu defal ma tegtal ma ay yoon yu ma war a. jaar jaar. Mhm. dëgg mhm. te comme ni ñu waxee rek nee naa yàlla mi am fay rek yàlla te yàlla fay du jëmm ma taxaw de. amiin parce que li ñuy wax rek ne di nga nekk ci nit. Mhm. di moom te doo xam nit kooku mooy kan. dëgg bu ma ko waxee sincèrement si biir laa jaar mais bu ma jox bu ma ko waxee sincèrement ça va toucher si saa si la ay solution te dañu nekk Sénégal ah. mënoon na ne yoonam nekkul ci Europe. wala ndoy baan dafa baax waaw dafa baax. xanaa nga te comme ni ñu koy waxee rek nee nañu wax lu baax ci nit ki yokkal ka cat la. Mm-hmm. ci. Mm-hmm. moom itam inspecteur am na fu mu jaar de. waaw kii man waaw allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. Euh, maa ngi di nuyu. Euh, soxna Eva. ñu ngi lay euh, fay. Uh-huh. ak uh, Mami Diop ak uh, seen. soxna uh, Awa soxna Awa Tunkara. axante di leen di bu baax a baax. jërëjëf. ba pare di leen encourager. merci beaucoup. seen seen témoignage bi c'est poignant xale bi xale bi doon wax sànq. Mm-hmm. man nag damay may woote maa ngi Espagne. waaw waaw di leen xale bi man li ma koy conseillé. mooy mu sant yàlla. ndax euh, moom yàlla may na ko ba mu euh, respirer di respirer air. di noyyi nekk ci ci àddina bi yàlla may na ko ba mu ba mu dund. dëgg la. ndax am na ñenn ñoo xam ne refus de paternité tax na ba xam ne ñoo rey seen doom. waaw am na ñu sànni seen doom ndax loolu. dëgg la. man li may wax dafa am sama benn xarit boo xam ne loolu yaakaar na mën ay 23 ans. ndeysaan. moom ndeysaan euh, dafa amoon ndeysaan ki ko ëmbal waaye ba mu demee di wax ki ko ëmbal di ko wax ne ko daf ko ëmbal kooku dafa bañ. Mhm. léegi waa këram nag ndeysaan yaayam yaayam ni mu waxal ak moom yaay ji ragal gàcce ragal moom itamit xam nga ne këram dafa tàng. Mhm. ñu dem di dem leen yàq ji ëmb bi. kooku loolu teg na ci bopp bi man nag dama bëggoon laajte juriste bi foofu loolu lan la ci yoon tëral. ndax euh, rey rey xale xale rey ëmb ëmb ëmb boo xam ne peut-être mëtoon ay juróomi weer wala juróom benn weer xam loolu psychologiquement déjà topp na sama xarit googu mais tamit euh, xam naa ne peut euh, ci loi bi tamit peut am na loi bi lu ci wax. Mm-hmm. jërëjëf soxna si. ñu mm-hmm. ngi rafetlu sa woote. Mm-hmm. inspecteur. ah ñaari yëf yëf yi dafay gën a day gën a daanu rek. Mhm. day gën a daanu suñu mhm. kaw ndeysaan. Ah, waaw waaw gis nga ndaw soosu doon wootee bitim réew man xaw ma ko mosuñu gisante. Mhm. dañ ma booleeg moom vie moom booleeg moom mu woo ma expliqué ma comme li mu expliqué. nii vie Diouf mel waaw puisque waaw suñu nekkee fële dañuy am yenn saa ay jafe-jafe yu mel noonu seen jëkkër yi abandonné leen. ak ak ak ay xale du duñu xam nu ñuy def am na ci ñoo xam dañuy xeexe xale bi maanaam xaaral ma koñe ko ci xale yi pour que mu am ay wala wala ñu peut-être ay tuuti relation rek bi ma wooyee automatiquement mën ko couper ma am ay ay ay ruq yu ma ko yu ma woote biir Paris bool boole ko ñooñu ba yaakaar naa ni am nañ ci yaakaar ni mbir mbirum mbiram moomu moom ak doom jooju dina dina sa dina saafaraw mhm. toujours sol solution day am mais tamit euh, kii juriste bi interpellé nañ ko ci ay question mhm. yoo xam ni su ci tontoo dina dina dina am solo dëgg la euh, comme gis naa ne jox nga ay tegtal euh, ndaw si parce que foofu mënuñu woon wax sax refus de paternité au sens juridique ñun biñ ko koy wax parce que kooku ñàkk a toppatoo xale bi mais reconnaître na xale bi yóbbu mais mais booy seet wan na ko ginnaaw topp toog toog ay at doo ko gis doo ko dundal yooyu tamit loi teg teg na ay yoon yoo xam ne euh, xale bi dina mun a fexe ba retrouver ay droit am fexe tamit ba papa ji continuer di ko dundal looloo ngi ci euh, ki nag mi ngi laaj refus de mi ngi wax waxu avortement di wax waxu infanticide lan lañ ci wax euh, fi ñu toll ni waaw il y a 23 ans te te cas infanticide yeeg ak cas avortement yi mm. defoon nañ ci ay lim jéggi na dayoo bu ñu clandestin yi xew fii ci Sénégal li am ba am mooy fi ñu nekk nii ci yoonu Sénégal fii ñu nekk nii avortement dañ ko tere avortement boo gis sax mun nga ko wooyee clandestin bu mu clandestin nga koy mun a wooyee parce que c'est pas légal mm-hmm. parce que c' est pas légal mais ñi ngi koy def ci anam ñëpp ñi ngi koy def ci côté bi nga xam ne c' même pas sûr côté charlatan yi ñi koy defal seen bopp. exposé seen bopp nag ci ay conséquence yu dul jeex. ak ñi nga xam ne tam ñi ngi koy def ci ay clinique yu mucc ay nga xam ne benn secret du leen ci fekk parce que ñoom peut-être. am nañ doole dinañ ko def benn problème dinañ fekk mais loi wu Sénégal da ko tere ñun nag bokk na si suñu ay mbébét ak li ñuy xeex mooy que avortement ñu mun koo autoriser ñu mun koo autoriser nag du fépp du fu ne ci yenn cas cas spécifique mooy jëmee ci viol ak inceste parce que bu dul dara sax Sénégal ci boppam moo ko d'accord mooy wax ne da ko war a autoriser ci biir dëkkam ndax ci protocole de Maputo article moom moo ko ratifié d'accord ci ba léegi nag dugalu ko ci loi yi nga xam ne moo nekk ci biir dëkkam loolu lu ko ci mën a dugal ba pare Sénégal may nañ eh, sax avortement mayee nañ ko mais mayee nañ ko sax uh-huh. mais day fekk santé yaay bi nekk péni ba pare ñetti médecin yu benn bokkul naa maye na ko diine maye na la. maye na ko waaw loolu moom diine moom da cee avortement médicalisé ci boppam. waaw moom la diine nanguwul. Euh, fii ñi ko fi bëgg a voté ñoom suñu leen médicalisé woon. su leen médicaliser woon duñ toog fii di wax. <laughs> loolu sa interdit il moom non non c'est yoo xam ne moom bu ñu ko jéem a def ci bopp sax Sénégal yi. nit koo xam ne déglu ma xale bi nekk ci biir ndaw si. Eh. choisirul pour pour pour pour pour juddu wala pour lenn ñaari nit ñoo lëkkaloo waxtaan ba juboo sos la ñu sos <laughs> bu nekkee donc moo ci sa xalaat bu nekkee kaawu inceste ma laaj la même kaawu sa inceste xale boobu ñu bëgg a rey hmm. mën naa judd tey ji defar Sénégal gépp nañ ba jàpp bu ci wax la ñan lañ war a rey mhm. ñaar ñi séq acte ba acte bu bon yàlla la yàlla tere la yonent bi tere ñun ñoom ñaar la ñu war a rey bu ñu la waxee ñaar ñi am na ku nangu am na ku bañ parce que mhm. dafa am kaawu viol tu sais bu ñu waxee viol rek force am na. Mm-hmm. defee nga yëf force. Mm-hmm. foqat ci nga ci nit ki. ba mu livré wu à waaye tubaab yooyu ñu bëgg indi ci réew mi. avortement médicalisé. ña bokkoon ca protocole de Maputo xamu lu mu doon. protocole de Maputo ñooñu duñu ay jullit. ñun mm-hmm. ay jullit lañu. avortement avortement médicalisé loolu du yëfi jullit. nee na la nee na la nee na la ci yenn cas yu spécifique yi nga xam. vraiment non non non c'est que su ma su leen bàyyee ñu wax leen ci loolu. waaw. ci affaire ay avortement médicalisé su leen bàyyee ñu wax dañuy convaincre sénégalais yi bañ yaakaar ne lu lu lu normal la du lu normal fii ci dëkk mel ni Sénégal Serigne Touba ne maam El Hadj Malick maam Baye Niass ne fi def ay avortement médicalisé. non ëmb bu naree lor yaay ji foofu dañ fa euh, yàlla rek moo war a xam ku ñu ku ñu. waaw léegi léegi nañu delluwaat nañu delluwaat mais médicalisé moom tege leen ko nee rek ba ci kanam. parce que ko ne fii Sénégal. maanaam mais wuñu kenn nga fiy waaw waaw waaw waaw waaw te ñun dama ne ñun dañ koy xees dañ koy xeex ci anam yooyu ñu wax mooy viol ak inceste. waaw ak santé yooyu nga doon waaw bëgg mu am ci léegi nanu jël ci léegi ñu jëm ah day am kenn waaw Awa nga ah, baal ma dama doon wax loolu foofu jigéen bi jigéen bi bu ñi rek xaw leen jàppale jigéen bu xam ne góor gi euh, jigéen bi moom euh, xëy na sabab la ko ñi surtout ñu violé ma ñu toog inceste waxa noppi nga xam ne mm-hmm. xale boobu lislaam sax da ko reconnaître ah, du ah. doon du def dara mm-hmm. léegi ñu leen la ñu forcé kooku euh, mu porté grossesse bi mu toll ceeg bañ cee toll mu am 10 ans mu am ñu violé ko ak képp ku ko munti violé mun na doon viol collectif. maam ja mun na ko violé. papa ja mun na ko violé. mag ja mun na ko violé. Mhm. mu vivre loolu yëpp ñu. ba pare nag. ba pare nag am leen luy dund ci biiram ñu ne dee da ngay dund ak loolu ba mu génn ñor xale ko waaw loolu di dund ci biir loolu di dund ci biir moom te moom yoonam nekk ñu ñu ba pare nag góor bi par contre lañ ko may. un peu Hawa jëlal jëlal ki ci ligne bi jëlal ki ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. maaleykum Soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di fay rafetlu émission bi. jërëjëf mhm. ah, yëpp damay dugg mais damay maa ngi ci crédit parce que yàlla nga dama ko soxla trop bi dama ci am ba vraiment dama ci sax di la teewal xol. d' accord na la vieux jox numéro bi parce que thème bi dañ koy continuer à la rajo. dina dina la jox numéro am. Mhm. bul quitté waaw danañ la ko jox soxna si nga baal nu àq ci li ngeen di jot ay insister te du ngeen ñu jot. Mhm. du sunu sago bu doon sunu sago yéen ñëpp dañ leen di euh, jot ngeen wax seen xalaat. Mhm. ñu ngi ciy balu àq. wa waa soxna Awa euh, yaa ngi doon wax waaye ma ñëw ci Linguère. Linguère day. waaw na ma sénégalais yëpp baal. nanu xam ne rek nit laa. parce que tey moom bu ma da nga doon bëgg rek ma collé la ne nga nelaw rek. fàtte say jooy dama naroon jóg dem ñibbi sax ah. dama ci xalaat rek mais dama naroon jóg dem ñibbi. gis naa xam nga nag euh, nit ku nekk tamit nit nga. te lii muy dund ni dafa metti ndax xam nga ki nga xamante ne yaayam daf ci génn àdduna. Mm-hmm. donc moom ñu wëlbatiku tuddeewaat ko turu yaayam muy dund ak loolu te xama ko woon ba léegi. émission li li yëngal sama yaram nag mooy que rek damay ñaan yàlla lii yàlla bu ñu ki gis suñu bopp. Mhm. ndax ki toogoon tey ba lii mën a ñëw. may xam ne rek daal ñun sasaat nañ ñu yanaat nañ ñu yàlla nañu yàlla jàppale bañ mën a eggale sas bi ñu sas. amiin mami de tey moom. <laughs> mami de moom ah sama ah, mami tey moom ndeysaan <laughs> euh, inspecteur. waaw ah wax nañ ko wareef euh, def nañ ko ñaari semaine mhm. refus de paternité la ñu doon traité tax na ñu woo fi imam Cheikh Gueye woo nañ fi madame Kali Niaw tey nag muy ba si awatunku Tounkara mhm. ñu jot nag témoignage boo xam ne wax dëgg yàlla tey ku kuy maire mhm. bu ñu waxee nag maire du ñu wax rek ka jur doom déedéet mhm. jigéen boo gis am na fibre yaay bu nekk ci moom ndax gis ngeen ko ci koñ yi soxna yi di ngeen gis koo xam ne amul doom waaye ñépp dañu ñëw jox ko seen bopp naan yaay yaay yaay xanaa yàlla noppi na jur doom du càggane rek dangaa am doom léeg-léeg nag aussi dañu ko wax ndoy baan gis nga jigéen dafa mën a sonn pauvreté bu ñëwee ci réew bu nu dee wax jigéen lay gën a jàpp. Mhm. parce que jigéen mooy sokklu famille moo yor kër moom moo xam jafe-jafe yi ci biir kër. kon nag suñu toogee itam mu am jigéen yoo xam ne danoo ëmb ba noppi yàlla def ñu wàcce leen ak doom ji. Mhm. xam ngeen ne jamono neexul loolu dafay jafe trop. waaye nag tout chose boo ko bëggee régler faaw da ngay ànd ak dal ndax gis nañ fi ñoo xam ne tey jamono yi ñuy wax ñu ngi wër seen baay waaye wër baay boo xam ne itam di nga wër sa baay ba sonn te yàlla ne kii doo ko gis mhm. da ngay toog nag benn moment nga analyser situation mhm. yaa ngi wër loo xam ne dafa mel ni puso bu dugg ci biir géej mhm. yow qu'est-ce que tu deviens dans l'histoire dafa am lu am solo doo jël loo xam ne gisoo ko bëgg bëgg bëgg anéantir sa bopp bëgg yàqal sa bopp pour parce que yaa ngi seetloo gisul mm-hmm. bu boobaa nag dangay ngay wu ci sa bopp mm-hmm. daal di jël le choses en main nga jéem a avancer jéem a defar sa avenir parce que am na solo avenir dafa am importance mm-hmm. am na importance trop nañu jël ki ci ligne bi allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si na ngeen def. kilifa gi ñu ngi lay nuy bu baax a baax macha allah. di leen de di leen delloo euh, di yi waat maa maa ngi oote États-Unis nii maa ngi tudd Momar Ndoye. Ndoye Lebou ñu ngi lay um, nuyu. dama seetaan émission bi mais vraiment ça m'a beaucoup touché quoi. dëgg la kay Ndoye dëgg la. Euh, madame gis nga gis nga loolu ngeen di débattre foofu. waaw moo fi ñu nekk nii. waaw problème bi fii da ngeen di ñëw da ngay gis ay gars yi nga xamante dañuy ñëw am am seen euh, nu mu doom. Mhm. di daw responsabilité. ci dëkk bi problème bi mooy que ne yow sa doom. boo ko juree dañ ko war a dundal par A ou B. Hmm. right léegi fii fii moom dëkk bi moom boo fi nekkee. di fay par force da nga bu ñu la yóbboo ko tribunal. waaw fay li jaaxal mooy que rek même bu ñu la yóbboo tribunal ngay fay cent dollars deux cent dollars si xale bi wala trois cent dollars nga koy jooy naan man sama doom mais yow bu ngeen dundee di bu fekkente ne mu ngi dund ak yow normalement di nga dépenser lu ëpp trois cent dollars chaque si euh, euh, si xale bi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mais pourquoi léegi bu ñu la bu la tribunal ne fayal sa bor même deux nekk si tali si bi di ko jooy di xa sonal xale bi di sonal yaayu xale bi pourquoi. Mmh. Mmh. mel mais jigéen ñi de dañu sonn de sonn nañu de. gis nga muy fii nag muy fan ju mais fii moom lu waay moom dina la ko teg ndigg ba nga xam ne di nga xam ne ne yàlla jur la santaane. wallaay nee nañu fii jigéen euh, xale bi la ñuy euh, jëkk jëkk xale bi mooy priorité. waaw yaay ji topp si après rabu àll bi xaj bi wala muus bee. topp si jën yooyu dëkk si topp yow ku góor yaay bi <laughs> affaire bi du question affaire naan yow góor gis nga dañuy war a bàyyi yenn yi. dëgg la bu ñu ñëwee fii di sëy dañuy war ñoom suñu waajur yi luñ doon sëyee. mais fii d' accord des fois bi jaar yoon góor bi jaar yoon mais xale bi ça n'a rien à voir paternité daal Ahmed yooyu. Mhm. nekk li nga xamante ne yaa ko ko war a toppatoo. Mhm. mooy yoon man loolu laa gis. jërëjëf yaa may dégg waaw moom laa gis affaire bi sax dafa warul am ay débat parce que ñun ay jullit lañu ay même boo nekk chrétien sax boo juree sa doom lu mu mën ci doon réalité bi mooy que ne ko war a dundal. tout à fait. Mhm. waaw moom de c' est un c' est gentleman. wax na wax na liy xalaat. surtout que juriste si boppam li ñuy nekk nii di wax yëpp. booy seet laaw Sénégal moo ko may góor moom ci boppam moo tere wut moo tere xale bi wut baayam. Mm-hmm. mu wax ko expressément ci biir loi bi. bépp xale bi nga xam ne judduwul ci sëy mm-hmm. amul droit rechercher papam bépp xale bu judduwul ci sëy amul droit amul droit jéem a rechercher papam xoolal waaw Sénégal ci bopp moo njëkk a tëj bunt bi njëkk euh, jël loi euh, droit wu xale bi mu mm-hmm. njëkk a nangu ay droit am mm-hmm. droit bàyyi ci ay exception mm-hmm. yan exception wu bi yi. mooy am na benn mais bi gën a siiw daal benn bi mooy euh, le fait que pape bi présumé pape ji daal il s'est comporté comme un maanaam daan na ko toppatoo bu mu ëmbee. wala ñëw na joxe tour wala ñëw na ngénte wala yónnee na. foofu nag législateur daal di ne njott ne comme il s'est comporté comme un prince war na continuer maintenant pap bu boobaa yaay ji nag xale bee tax may wax mais comme mineur la yaay ji laay tudd yaay ji door a mën a def action en indication de paternité te nga gis législateur bi fi mu def foofu lépp xaw na jaxasoo. Mhm. parce que nee na kooku déjà amul droit xam papam mhm. mu may ko fenn fu mu ko fu mu ko xamee. Mhm. nga foogoon yëf dina yegg comme may na ko fu mu ko xamee léegi xale bi dina mën a porter euh, sant papam mu ne déedéet. may naa léegi ñu def indication paternité loolu obligation alimentaire dong lay nokk pour papa comme yaa ñëwoon di toppatoo ba mu ëmbee comme yaa ñëwoon joxe tur wala yaa yónnee woon pour ngénte dundal ko comme sa doom la woon waaye ba tey roi bi forcé wu la nga nga reconnaître ko mhm. ce qui fait góor bi moom privilège la am fii Sénégal doom boo xam ne amul ko daal ci sëy mhm. da koy neex mu nekk papa neexu ko illaa yow mi dini du mun a nekk papa mais mais ci ñu gis ne loolu nag loolu du bitim réew. loolu fii la ci suñu waa code code de la famille. mais ñu gis ne nag dañu war a léegi ànd ak jamono. ñun tam dañu proposer ay modification article boobu 196 dañu bëgg boobu. ñu daal di ko nii lal annulé ko parce que yeneen moyen am na fi quand su fekkee am nañ kenn ku ñu ñott quand même ne papam la mun nañ am moyen ñu firndeel ne kii papam la. mu daal di mun a def obligation am et puis tamit droit wu xale bi identité xale bi ak dignité am booy seet dañ ko bafuñ parce que foofu reconnaître ko parce que bu ñu demee ba ci donn bi tamit mu di wan beneen problème parce que papa ji su fekkee da doon sëyit mu reconnaître ko pour donn bu ñëwee il faut jabar jabaram yi nga xam ne jabaram yi jurul xale bi d'accord d'accord xam nga mooy. mun na cee am ñeent nag bu dee ñeent mm-hmm. ñeent ñëpp war a d'accord gis nga da nga ñuy rejoindre. démb mm-hmm. ñu ngi koy wax ci xa histoire kaawu Fatick bi defe naa. Mm-hmm. ndaw si woote di wax ma ni ko dey dafa wax ni euh, doom jooju doomu frère dafa juddu ba muy juddu jamono ji muy juddu fekk na. Euh, moom ki ne mooy baay bi nekkoon ca bërëb ba mu juddoo. ndeyam gaañu waa ji daal day jël loolu ne kon daal moom jur na doom ji. Mhm. kon xam nga kon xale bi nga xam ne jur na gisul ndey. da cee tombé waaw da cee mhm. léegi ñu dem dem ba fu ñu toll nii ña ngay wax naan nañ ko ko wax wala buñ ko ko wax. moo tax démb ñuy wax ba ci yàgg man itam ma daal di wax ne. Mhm. nañ ko ko wax buñ ko ca buñ ko ko wax dana dépendre ci kan mooy soxna wu. waa ji parce que soxna si bu ko yombalee mu yomb. waaye bu ko yombalul tam xale bi faaw daan ko wax boppam. moom nga mu mel ni moom nga indi tey ba noppi góor gi xam dañ ko ne boo reconnaître moom kenn mun la ci fos waaju la ci fos waaw mais bés bu fekk moom bi muy am xale bi waaw mu ngi yore ay soxna muy benn ñaar soxna yooyu yëpp mooy bu dee benn waaw dañu war a d'accord bu dee sunu dégg-dégg baax na ba tey keroog am nga nijaay bu woote fii parce bu dee doon na tamit genn wàll doon na lay am gis nga daal di daal di wax ne kooku ci diine la waxee nee na daal li ñu ci wax daal mooy boobu doon mm-hmm. bul laal bul jege du doon ci diine mm-hmm. waa léegi bu loolu passé mm-hmm. gannaaw dañuy régler ay problème bu fekkee ne loolu yëpp tegal nañ ko xale bi nga xam ne juddoowul ci yoon est ce que d' accordul leen ne bu weesee ne mi ngi seet baayam gisu ko moom ca boppam na xool moom lu muy devenir jéem a jël haine bi nga xam ne ma nga ca moom teg ko fële. Mm-hmm. avancé ah, ah. mu motiver ko mm-hmm. sax mu motiver ko sax. Mm-hmm. bien. kii justice de proximité bi. ñoom dañu am benn justice ki euh, nu mu tudd justice de proximité. ci biir justice de bi démb bi ma ci duggee gis naa ni euh, xale bi nga xam ne enfant naturel la euh, moom ci boppam bàyyam mën na ko reconnaître ba pare duggul ko ci biir njabootam gi nga xam ne moom la am moom la am ak soxnaam maanaam do ak do. ah. bu ko reconnaître kay. su ko reconnaître mën na ko dugal ci livret de famille bi. xale bi dafa am extrait de naissance. dafa am extrait de ah. naissance. Mhm. papaam reconnaître ko. Mhm. ci judduwul ci sëy. Mhm. mais su ko papaam reconnaître. mën na ko dugal est-ce que mën na ko dugal ci livret de famille bi. bu dese na maa wóor ndax de famille bi ñaari dafay nekk. waaw bu fekkee. comme ñee sëy ñu duñ mun a am livret de famille mook yaayu mook yaayu xale boobu mu reconnaître sëy ñu te livre de famille bi papa ak yaay ñoo ciy nekk. Mhm. xam nga ah. ak yaay ciy nekk. est-ce que ma jaaxal est-ce que kon loi bi nangu na kenn ni doom jooju. Mhm. su boobu baayam dee est-ce que dina doon su fekkee. loi suñu loi waaw day doon. day doon mais day doon donc waaye. xale bi bu juddee comme ni ma waxoon rek fekk papa ji amoon na jabar. Mhm. jabar jooju foofu mu d'accord. Ah. pour doomam yi tolloo bu d'accordul doomam ji dina doon waaye genn wàll ñu jël keneen bi am lay allo allo salaamaaleykum soxna si baal ñu àq yàgg nga ci ligne bi baal nu àq euh, maa ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax a baax. di nuyu sama kenn yi loolu itam doy baax xam naa xamee na sama baax. waaw waaw maa ngi lay nuyu sama borom nag maa ngi jóg. Ah, maa ngi lay fay waaw maa ngi boobu madame Tounkara bi nekk ci plateau bi. jërëjëf jërëjëf. ak jërëjëf yaa ngi gën a woote wu ma euh, Ndoye Ba xam nga jooy naa ko baalu ma la ko. non bu ko kenn baal bu ko kenn baal bu ko kenn baal man man def ma dara. bu ko kenn baal léegi nag fi doy man dama rek Bousso donc Ndoye Ba jooy naa ko bëgg a dee. dama rek Bousso Bousso Bousso Bousso Ndoye Ba man de Ndoye xam nga lan la bëggoon xam Evatra. waaw. parce que dès l'instant que y a eu une grossesse y a eu un enfant yaay nii la ko jur ku jigéen ak ku góor. Mm-hmm. mais waaye waaye lu tax duñu teg ay ay ay ay ay ki nga xam ne mooy ku góor ki ëmbal ndaw si ak nu mu mënti doon ne papa la. na naw si refus na def na refus de euh, de paternité wala dundoonu doomam. Mhm. seen invité bi génne léegi aux États-Unis effectivement il a raison gis nga fi mu aux États-Unis. Mhm. boo ëmbalee nit ba reconnaître ne y a fini certificat euh, de de de paternité bi. Mhm. ak noo mën a toll. Mhm. dana ko dundal boo ko dundal leen nag jàpp si lenn bi ci kaso bi. côté mhm. boobu nag li ma dem Tounkara wax léegi doo loi bi dañ ko war a réviser parce que am na soo xam ne moom mooy na saxal euh, euh, droit euh, xale bi. Mhm. na saxal droit yaay ji. dëgg la dëgg la. waaw dañ ko côté boobu moom war na législateur yi war nañ ci jóg xeex ci parce que c'est pas normal. Mm-hmm. waaw jigéen ñi solo nañu jigéen man man sincèrement dama dama dama sama xol bi dama génn dama jooy man bi lay doon baal baal ma ko. bu ko kenn baal bu ko kenn baal bu ko kenn baal. Mm. macha allah waaw métti na trop trop trop trop. Mm. dëgg la dimbali leen ni émission bi daal bu mu jeex. <laughs> <laughs> Ah, ah, ah, tey tey ñu ngi ñu ngi toog tey pour close vraiment vraiment vraiment tey jii moom. Mm-hmm. moom ba léegi nag maa ngi di jéem mais dugg moo jafe. dëgg la dama xam ne war a sama sama émission. dëgg yow yaa ko moom dëgg dëgg la bu soo mm-hmm. jërëjëf. waaw. dëgg bi la seetaan maa ngi nuyu ñëpp nag si plateau bi di nuyu Ndoye Bane sama xarit Ndoye Bane sama goro. yow kenn du yow ñu ngi nuyu yéen ñëpp daal. jërëjëf jërëjëf Bousso. ñu nuyu waa États-Unis yëpp incha allah merci beaucoup merci beaucoup ah, ah, ah, awa Tunka waaw waaw moom indi na fi wax bu am solo. waaw waaw na soo amee doom danga ko war a dund obligation la. waaw mais pourtant fi tam Sénégal obligation la. doom joo am obligation la nga dundal ko mais day fekk nag nga reconnaître ne sa doom la problème bi yëpp foofu la moo tax dañuy delluwaat rek ci refus de paternité parce que képp bien sûr papam nga am obligation bu fekkee dundalu ko war nañ koo mën a woo ci yoon waaw une fois que nga am na lu ma jaaxal am na lu la ci sama xel mooy que kon Sénégal daal loi bi moo toj gone yi que bu ñu bu leen bu leen seen baay neexee mu nangu kese bu ko neexee mu bañ góor ñi itam kon Sénégal ñoom dañ leen a jox droit que ne bu leen neexee ñu ëmbal gone gu jigéen ba pare daw bu ko gone gu jigéen nga yàqee dem tëddi camp pénal ñoom ñu nekk ci mbedd mi di taxawaalu ëmbal mmh, keneen waa léegi nag damay laaj fii nga xamante ne kenn ku ci nekk jabar ji nga xamante ne da nga fekk sax yow sa jëkkër jur ko ak yeneen jabar ju mu takkoon moom ngay xool noo ko buuxee pour mu génn bes maa ko sa jëkkër am ci biti est-ce que kooku bu ñëwee pour nga reconnaître ko yow yow muy jigéen kon jenn doom lañ fi du reconnaître gis nga Sénégal daal loi yi nañu ko xoolaat mm-hmm. tegaat ko ci yoon xam nga lu tax ku yuut muy te boo waccoo dee mm-hmm. ñun suñu doole bariwul suñu kàttan bariwul même buñ fi toppoon ni ba ne ko dangaa a joxe pension alimentaire a dundal sa doom ndoy a xam ne bu ginnaaw subaa du ah mm-hmm. gis nañ ko taxaw ne carrément gannaaw maa war a yor doom yi man démissionné na boole ceeb fii góor ñi fi am ah, ah, ah, problème bi am Sénégal mooy réew mu lijjanteeg la ak léewum ràqarteeg léemu réewum nëpp nëppal mm-hmm. jeexu fi ba tey da ngay am sa jabaat am ak moom i doom reconnaître leen doo dundal ñooñu. wax dëgg la koo ko ko ko am fële. Mm-hmm. waaw mais comme yoon itam yoon itam may na la bu ko jigéen ñi xamee baax na. képp koo xam ne. bu dee ne diw mooy bàyyi euh, sa doom yi wala sa doom mu reconnaître ko yoon may na la bu dee bokk droit ak ñeneen ñi ci li ñuy wax parce que amul xaj ak seen xale xale la mhm. loolu la wax mais ci pratique gis nañ ne du loolu te ñun ñeen ñenn dañ fiy ñëw wax wax ñëw ci suñu boutique de droit yi mhm. kii de dama am ak doom moom doom ba léegi bañ na ko reconnaître léegi man dama ko bëgg yóbbu tribunal nii ak nii nga forcé ma ne ko ci naka ñëw na ngënte wala expliqué yooyu mu ne yooyu bi amul ma ne ko metti na lool amoo looy wax foofu ci ah. tribunal loo fay mu ne waaw man wóor na ma ne moom la nañ def test ma bëgg ñëw nag ci eh, eh, test d'ADN du attan bi de Fall Diop kon attan bi du loolu déedéet attan bi sax du loolu bien que wàññi nañ ko kon docteur Malick Diop ñu ngi koy nuyu Ami Fall nee ah. moom looloo ko tiital moo ko jàqal mhm. naka la ñuy waxee ñu def test ADN loolu nag te cherté boobu du question sax cher bi du question te danaan man wóor na ma ne moom la nee na moom moo bañ léegi na may dem ci juge bi wax ko lañ def test ADN Euh, góor bi dafa nekk ci pleine liberté mënuñu ko forcer ci dara. pour mu dem defi test bi. non xanaa day fekk. su yenn cas juge bi daal di ko ordonné. juge bi day def ordonnance saisir procureur mais juge tamit di def benn ordonnance parce que kenn dafa ñëw nag ne diw. mooy sama kii rek def test kat. déedéet déedéet loolu yow parce que interdiction de la recherche de paternité. ñun moo tax ñun ñu bëgg 199 boobu ñu changé ko def ne la filiation peut se prouver par tout moyen moyen scientifique yi léegi ñu ngi koy permettre. waaw ADN bi sax fekk ñu ngi koy ñu ngi koy wàññi. bu boobaa tamit et fan ngeen ci toll fan ngeen ci toll nag. loolu yëpp ci mi bokk ci réforme. ADN bi ñaata la moom ñu boole ci dégg naa wàññeeku na nag. ñaata la woon. bare woon na xam nga ah, Eva lan moo ma naqari waaw ñii naan doo ñëw rek ne nuy baan mii la ma yóbbu ko tribunal comme bañ na monsieur le juge. da nga koy wóolu ba noppi ci yoon xam nga Eva lan moo ma tiital juge xanaa mooy jël ordonnance wala ci yenn situation. gis ne mhm. vraiment. fii daa yaakaar na moom xanaa moom mu jël dëkk def ordonnance boobu. Mhm. ne léegi man damay. Euh, convoqué forcé convoqué ba pare na jaar dem def test. mais man xam nga xam nga lan moo ma tiital oh, madame Tunkara. ñëw na nit rek mooy sama doom na acca acca nañ def. li ma tiital mooy li ma tiital mooy def ne li nga ne da ngay dugg kër jàmbur ne da ngay def euh, perquisition uh-huh. affaire yooyu il faut nga am ordonnance pour dem perquisitionner. Uh-huh. kër jàmbur bien que xalaat moo ko sàcc mu ngi fii jib kër nañ ah, yu ay yoon la fii tam boo ñëwee ne sama kon day yomb kon sax problème bu bare na mhm. réglé parce que am na ñenn ñoo xam ne da leen di wóor ne kii mhm. moo leen ëmbal te bu ñu defee test ADN ñu daan ko xale bi euh, papa ji dina ko jël en mhm. mu dem mu wóor ko a nañu yàlla jàppale rek parce que gis nga même réforme yi ñuy wax nii bala ñu koo séminaire ba dem ko sali ba dellu ba bind ko ba tàppe ko ba dugal ko ba delloowaat ko ci trois yi ba xëccaat ko ba génne ko ba a am même problème yi. bu jeex parce que gis nga daal nañu nañu yàlla sàmm daal. macha allah xam nga projet na situation bu mel noonu mais projet de code. bala ngeen a séminaire ba bàyyi rek. ba tey euh, soxna si ñun ñun mënuñu lu dul di leen yóbbanti itam. boole leen ci gis nga père néant. dafa metti dafa metti dafa toroxal doomu aadama surtout ci xale bu góor bu war a xëy. ëllëg defar famille. Mhm. nga yor sa carte d'identité yaa nga bañ say doom gis ka yaa ngi bañ sa jabar xool ko bala ngay takk nan ngay demee mais kenn bëggul ah. sant ndeya loolu tam boole leen ko seen ay réforme santul na bu leen ko bàyyi bëgg bëgg xam seen papa bi ni mu metti ni sama papa ku naa xam ni kii sama léegi nag ñun émission bi tey tey fii lañ ko yemal ñàkk ko xam moo tax inspecteur hmm. dama lay bàyyi nga wax sa dernier mot parce que dafay am solo lool hmm. nit a ngi wër baayam ba mu war ko dikkee feebar te dara wóoru la ne sax boo ko gisee danga ah, dana la bëgg yaa ngi koy wër ba mu dikkee la feebar yaa ngi sonn yaa ngi jaaxle tu perds ton temps te doo ko gis man côté boobu ñooñu laa yërëm moo tax il faut ñu waxanteeg ñoom ñu dellu ci seen ay mbiru bopp parce que di wërloo gisul dugg ci géej ne man damaa bëgg a gis sama puso kooku dafa jafe te metti te mën naa yàq àdduna nit mmh. inspecteur koy tàggat waaw émission bi neexoon na mais xam naa dinaa leen defal buñaa bi samedi waaw 23 euh, heures ba 3 heures du matin à la rajo mmh. ak démarche bii di ñëw waaw xam naa ni dinaa jéem a këfaale juriste yi am parce daal di jël jël thème bi pour continuer ko fa li may xale yi jigéen yi nga xam ne loolu dalagu leen waaw ñi mu dal yàlla nañu yàlla ñi gis seen papa yàlla ñi gis seen yaay ak seen njaboot mais ñi mu dalagul gone yi jigéen yi nañ téye liñ yor mm. te yam te toog mm. bàyyi lambar lambar gi mm-hmm. loolu mooy dëgg mm-hmm. waaw maire yi nañu mooy bàyyi seen doom yi góor nañu bàyyi xel seen doom yi góor yi ak jànq bi ci biir kër gi nañ bàyyi am na ci ñoo xam ne du ñëpp nag ca ñama ko a wax nañu bàyyi xel seen boroom kër ak jànq bi ci kër gi suñ ko deful lu si vingt ans lu mel nii lay mooy mooy mooy amaat rek paa ba faatu jànq ba doon liggéey ci kër gi yaa 15 ans ñëw daal ni ko ba mu fa doon liggéey la la borom kër gi juróon kii ñu ci bari sëy ak frère am sax sëy ak mm-hmm. daal la laay tàggoo mm-hmm. te wax les juristes là ñu dimbali ñu ci ay avortement médicalisé moom nañ ñu dimbali nañ ko bàyyi ak waa Mopoto waa Mopoto def loolu waaw mais da ngay def focus ci réforme ya nga xam ne ña ngaa ñaan yàlla ñu dogal ko am ay changement coppite yu baax mm-hmm. yoo xam ne mm-hmm. bu yooyu dikkee dana dana dooleel jigéen dana mm-hmm. dooleel ki nga xam ne itam mi ngi wër baayam dina joxe yenn droit yi daal parce que àdduna itam dañuy wax lu loi mais euh, àdduna dafay dox itam dafay dox ñu gis yeneen ak yeneen li ngeen looy tàggatoo waa xanaa di wax li ma sama maam waxoon rek nee na ma daal makk sunguf koo yemal ay lor ndax xam nga ki nga yemaluti lor bu tëbbee mëkk sunguf nga mëkk bu ngeen ko mënta jàllale ndoo di fatt te nañu xam ne mën a kottum saaw kum tax a maf euh, mën a kott kum mën a yéeg kum tax a maf ñaandum saaw mhm. boo ci jógee loo amati jël de ko teg dooy mal mal joo gis gone jigéen ñi ne leen muut lan mhm. saa neex ne woon toog leen ci seen pooju ndey yi mhm. du woon wax ju ñaaw luppum nday lu mu lax lax lax ca la doom di toog waaye nday ju ne doom demal indil ma lu ma fayee facture courant bi mm. sama natt bi sama nawle yépp a ngi takk or ku la indil million bu la indilee doom bootal te gore te denc ko te xam ne waroo koo kaas mm. yal na nu yàlla jàppale di baaluwaat ñëpp àq nag mm. képp koo xam ne yëkkati nanu saxol ci deux semaines yi ñu ngi lay baalu ndaxte jubluwuñ ci woon lii xam nañ ne nag tooñ nañ tooñ nañ ndax yëngal nañ ay góomi fanweeri at ak nàngam yëngal nañu ay kër waaye ñun ñu jooy war ngeen a ne amuñu lu ñu neex rek ba tax ñuy toog di jooy nii man ba ñëpp dañuy yaakaar ne ceinture noire moom dama koy kii mais xam ngeen ne xol rek laa yor kon ñu nit ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp ñi ci jàpp ñu ñu jox xel ñu ñu woo wax ak ñun ñi nga xam ne bëgguñu sax seen problème ñun di ko ci télé bi ñu ngi mm-hmm. jégglu ñëpp ñëpp ñëpp sama bàjjen Awa Diop fële ca Dallas maa ngi lay ziyaaraat waaye sama yaay ndee la wadd conseil yi nga may jox lu ma ñor la wadd dungal ba sa mami baawaan waaw euh, madame Tounkara sa euh, xanaa di wax ne xale yi ñoo leen bokk rek mm-hmm. nañu bokk ñu ñëpp di liggéey ci nga xam ni mu jëm ci euh, aar xale bi mm-hmm. aar ak xam ak yelleefam yi parce que xale yi ñoo ko bokk parce que bu ñu leen aaroo rek société bi yëpp mooy mooy yàqu lépp lu war a jëmee kanam xale yi rek war nañ ci jàpp ñun ñëpp Euh, diisoo ko nag ñun ñëpp bi. Mhm. ñu ko wax rek. te ñuy wax ne rek waa RFM ñëpp. waaw di nuyu tamit waa AGS. waaw ni tati doon fête anniversaire am démb. Ah, euh, Edmé Mariane moo ne sama yaay di fête anniversaire am tey non jafewul. di leen nuyu ñoom ñëpp di souhaiter tamit heureux ménage ak sama benn doom bu tudd Chula. Ah, seen boutique yi ñu ngi Medina ñu am nañ fa boutique. Mhm. Pikine am nañ fa boutique. Mhm. am nañ Kolda am nañ Ziguinchor. bu te bu ci kanamee dinañ ubbi Kaolack. bu loolu amee ñu ngeen nuyu ñun itam sunu ay xarit comme ni ko mi waxee danoo doon rafetlu liggéey bi bay wootee mhm. léeg ñu indi ci seen xel itam ñu dem ak mhm. moom ñaari semaine yëpp mhm. ñu ngi nuyu bu baax a baax madame Yacine Mboup ca France ak waa këram ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Maguette Fall sunu camarade de promotion la mi ngi fii ci Almadi jege ñu nekk sunu dëkkandoo bu baax ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom ak boroom këram la jàkk la Linguère ñoom tuutaan jàkk waaye nag Korsana Camara Mariem Cissé duñu ko fàtte Takumba Cissé itam kenn du ko fàtte lii mooy woon seen émission wareef ñaari semaines yi nii la ñu defee ak yéen ñu ngi doon wax refus de paternité di ñaan yàlla lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu doon loo xam ne dafay jëriñe waaye itam képp koo xam ne itam góor nga te toog ci sa kër yàlla def la kilifa wala mu def leneen bu la wóoree ne am nga doom quelque part mhm. il n'est jamais trop tard pour bien faire mhm. adduna amul benn solo demal nga dox sa fulla dox sa fayda mais doomu aadama yi sax léeg saay boo leen bëggee déglu ci sa mbir wala ci sa liggéey bopp mhm. bu nu xëyee daañ la wax ne la yow gis nga sa patron bi sa patron bi dalay exploité mhm. yow gis nga seen directeur nangam dalay def nangam lu waay di def te muy lu baax na nga ko bokk ak borom xalaat yi rafet yi mhm. wa illaa nanga nga gaawantu dem dox ko ndax kat yaa ngi toroxal nit koo xam ne dans sa chair mi ngi feebar te yàgg-yàgg dana ñëw ku ci nekk daañ la defal benn tàkku tàkkusaan mhm. toog rob la war a wax ci yow il jamais trop pour bien faire mbokk yi mhm. Manti Traoré nag moom itam ci xalaatam nee na ñu ñun jigéen ñi bu ñu dem a dematee di toog ci sëriñ yi ah alxuraan mën na lépp amul lu alxuraan bàyyi. Mm-hmm. bu nu toogatee ci sëriñ yi ba war fa wax waxu wujje wara buux benn mami lingeer bu toog ci liggéeyam wala inspecteur Ndoye Bane wala mm-hmm. awa awa tunkara mi mm-hmm. na nga xalaat sa jaboot ba noppi. dinañ jël jaboot yi delloo leen ci diine moo xam moo xam catholique bi la moo xam jullit bi la lu waay di def na ko njëkkee ci diine dénkal sa doom diine dénk ko yàlla bu ko defee yàlla moo la koy yoral ku ci def leneen itam gis leneen ñu ngi leen di jéggalu di leen balu di leen wax ne semaine prochaine incha allah ah hmm. dinañu indi sujet bu am importance wujje bu nu waxee wujje rek bu nu foog ne mameek Eva bu nu bokk ci benn kër booboo gën a yomb ci wujje mhm, mhm. am na yeneen xeetu wujje yu bon yu nekk ci mhm. biir réew mi wujj peccor ga yi mënunoo fóonante mënuñoo jegante ndooy baan mii ci place am dama koy iñaane bu directeur wooye ko ma mer et keneen ak keneen boo duggee ci biir bureau gis sa mbokk sa xol di fët fëti ba nga xam ne liggéey ga nga waroon concentré wu sax doo dootoo ci concentré wu yàlla na nu yàlla jéggal suñu bàkkaar def nu ñu bëggante ngir dindi te lu ko neex rek lay def bu mhm. paree signé moo tay comme mhm. gannaaw noonu la ñun nanu nangu rek mhm. jaam bu bëggee mucc dafay nangu dogal nee nañu lu yàlla àggali rek dafa jot lu lu ko neex lay def kon boog mbokk yi lii mooy seen émission wareef sant nañ leen gërëm leen may remercier a Style bu baax a baax ci mbubb mu rafet mi ma solal ñoom ñu ngi nekk ci 821 64 72 ci Fanok waaye tamit salon de coiffure bi 648 56 bëgg nañ leen sopp nañ leen rendez-vous altiné incha allah na ñëpp ne ci jàmm